Eh, gis nañ ne Pape Bouba dañ ko tuddee musée boo xamante ne si stade Abdoulaye Wade mm. eh, loolu moo waral famille bi ñu sees pour sees si leen eh, jéem a xam seen mbégte si loolu waaw d'abord di remercier bu baax euh, les autorités ci li ñu jël musée bi tuddee ko Bouba donc je me rappelle jour bi ñuy bi corps bi di ñëw bi ñuy def cérémonie officielle ba ci la ko président annoncé woon donc yàlla def nañu réaliser euh, stade bi mu fekk mu pare donc ñu ñu tuddee ko mu nekk lu rafet donc famille bi yëpp di ko rafetlu aussi waaw mu nekk lu nga xam vraiment c'est c'est quelque chose de grand pour la famille voilà. gis nañ ne boobu ba léegi depuis Pape Bouba bi muy génnee àdduna saa su nekk turam dafa nekk en actualité. Mhm. mais yéen euh, gisuñu leen fenn. waaw d'accord de toute façon loolu moom euh, dëgg la donc parce que ñun famille bi boo xoolee. Euh, on a toujours travaillé comme ça dans l'ombre ndax kenn nous xamal dara kenn mësuñu gis ñu dem ci presse wala ñuy wax fi wala du dem feulé. on a toujours été comme ça mais nak depuis que Bouba bi mu génné aduna ak légui, dafa am yu bari yu fi jotté xew donc déjà ci inauguration bi rek y a beaucoup de choses qui s'est passé parce que ñom les autorités ñom lay waxal parce que ñom bu fekkee par exemple dañu tuddee lu toll ni musée bi Bouba donc lii normal c'est muy logique dañu war saisir officiellement la famille dañu war saisir officiellement donc du ñun ñoo war dem ci mais nous ñoo war a ñëw ci ñun dañu 48 heures avant kii bi. Euh, inauguration bi 48 heures ba 48 heures ñun xamuñu sax ndax am dinañ dem wala duñ dem tu vois donc xam nga loolu rafetul il a fallu grand bi dem lambe le dimanche daje fa ak ministre bi bi mu dajeek mom fofu mu waxo mi ministre mako wax sax ne ko yow jot ngeen sen invitation ak yooyu y a eu problème légui après mu mettre ko en rapport après ñu dem ñu top ci ba ci veille bi ba ci goudi gi le lundi le lundi le lundi à presque ba vingt heures 20 heures 21 heures si cérémonie bu nga xam la le la wara am xam nga lolu mo rafetul moy ñun

yow nga ñëw ci nga ñëw ci dëkk bi bu ñëwee li mu war a def mooy ñëw coordonner avec la famille te loolooy dëgg. Mhm. moom bu ñëwee dafa war a ñëw ci ñun. dëgg la su ñëwee dafa war a ñëw ci famille bi diisoo ak ñoom wax ak ñoom jàmm sant lépp lu muy def mu coordonner ak ñun. Mhm. yëgoo ak yéen. yëgoo loolu moom la woot gaal yëgoo mooy loolu la loolu lañu soxla du leneen. mais rafetul tey ñuy ñuy tudd dara ci buuba du du ñu gis famille bi waaw duñu gis famille bi loolu moo rafetul moom bu nekkoon nit bu nit bu normal wala mu nekk jigéen bu baax day ñëw di jokkoo ak nit ñi bu ñuy def qu'est-ce qui l'empêche moom elle a reçu des invitations kooku ko jox invitation yi yi mu jot kan moo ko jox te bul fenn c'est parce que ce sont les autorités ñoo ko jox parce que ñoom ñoom parce que man comprendre ma ñoom li li mu am fii sax moom amu ko amu ko seen kër amu ko seen dëkk mu sommes au Sénégal nous sommes ñi nga nous sommes au fi fi fi am qui fi quoi. non pas la logique il faut que les gens les il faut que autorités restent wu ci loolu famille parce que nous c'est ça qu'on veut. da du respect quoi. C'est pas du respect ça C'est pas du respect. ok Bouba c'est pas n'importe qui.

té loolu do do dul am té dañ ko dul sétane kooku mom bu yow mu xam ko ñun quitte à ce qu'elle passe sur nos cadavres pour atteindre à ses fins mais loolu dañ ko dul nangu. il faut que loolu mu pendant des années pour tout ce qu'il a investi ici au Sénégal je vous dis tout ce qu'il a investi ici. ñun ñun dama ne waxuma dama né lima wax ni ñun ñi la ñoko dox wax ko ba mu lu mu def amul leneen lu ci def musul taxaw amul kenn ku mos taxaw ne ma bu ma jaay bu suuf amul c'est nous qui avons tout fait. donc mm-hmm. il faut mu leer. il mm-hmm. faut que ça soit clair. Mm-hmm. du ñu ay dof nak ay magum jëma lañ nous sommes des responsables ay kilifa lañ nag. duñu ñu waxantu. dañu bëgg nit ñi respecté ñu les autorités li ñi def du deug du yoon. PAM bi mënul jóge fële buñu wax mais xana sax même bu fekkee né même su fekkee né sax la wax ñom dañuy joko ak mom mais ñu né ko waaw la famille wétal xanaa loolu mooy dëgg nit nit da ngay da ngay parce que tamit. buuba moo yenu moo yenu maanaa. buuba mais eh, mais wàccul noonu rek ci kaw suuf xëyul rek wàcc na. dañ ko jur. daf ko jur mu nekk dans une famille am ñu mu bokkal am ñu mu bokkal nekk fi ñu def li ñu war a def pour moom taxawu ko kii Alioune bi doon wax léegi bi doon wax ak moom nii. buuba contrat yi ma signé c'est lui qui a négocié tout ça moom mii fépp fu mu jaar.

elle a trahi. Mais nak dinañ ko parce que xeyna il faut qu'elle revienne à de meilleurs sentiments. mu ñëwaat da réel sentiments mu jëloo si xelam xamné aduna du ay affaire de kii ak est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que ah. tubaab lolu culture am la. est-ce que mom mom jar bobu la xamna lolu non mu xam ko mu ñak ko xam yépp ñun la preuve kérok bañu démé ci cérémonie bi yo yow buñ même bu faites ne kii mais tu n'as qu'à coroner avec la famille lu tax moom elle l'a pas fait pourquoi nga Aline non da ngay ñew nga wo nit ñi parce que lolu concerné woon du mom c'est Bouba c'est pas elle c'est Bouba c'est-à-dire j'ai pas compris non parce que mom dañ ben bañ buñ ko joxe invitation ba muy dem lutax tax mu couronné wul ak ñun pour nañu ñu and dem elle l'a pas fait ok day tànn ci famille bi day tànn parce que grand bi nekk Rufisque moom la tànn woo ko nekk parce que peut être je sais pas. grand boobu loo leen bokk ak moom non ñoo bokk ndey bàyyi suñu mag la mais du ay yooyu sax parce que dafa rafetul moom dafa warul defee noonu boo ñëwee da ngay boole yëpp nga nga woo nga ne nii ak ñu ànd ñun ñëpp foofu lañ jëm ñoo war a bokk fi ñu war a nekk ñu ànd ñu dem moo gën a rafet pour l'image de Bouba c'est ça parce que il n'a musu fi wane yoo loo xam ne ay kii la ak yooyu mhm. moom moo war a def loolu c'est il qui doit revenir à la raison mais mënul ñëw di jéggi famille wala ñu ñëw dégg ko Sénégal muy def ni def yaata yi def lu ko neex ba paré elle respecte même pas c'est-à-dire manque de respect la total te mbir mi mbir mi fa mu njëkk commencé c'est fan la moy bëgg président di recevoir parce que président mënul le recevoir yow nga dëkk nga ñëw mu recevoir la il y a aucun membre de la famille qui est qui est bu bu bu dem ci audience bobu mhm. lolu moy man premier manque de respect vis-à-vis de la. est-ce que loolu erreur am la wala erreur état bi quel que soit alpha le président de la République son protocole ak ay yeneen ak ñeneen yi def yëpp dama ne la. buuba fa am famille way nañu waxul dëgg dafa am famille mënul ñëw du du ñooñu du looloy famille ok. Mhm. tey ñun bu ñu àndul woon ci sëy bi est-ce que moom dana am ñaari doom yooyu bu mu ànd ak moom foofu waaw wala déet. damay laaj bu fekkee noonu est-ce que ñun buñ ci àndul woon ba mu ba ñu ba loolu am.

sëy bi jeex na ba mu ba buuba dee la sëy bi jeex affaire amatu fi waaw mais lépp loolu da ngay rafetal da àdduna da ngay rafetal mooy da ngay ñëw parce que Boubacar ki nga doon sëyal nii moom néew yaa ngi fi mu bàyyi la fi alal la moindre des choses boo ñëwee da nga war a ak fam bi nga ah man kat nii ak nii ak nii nga toog waxtaan ak nit ñi xool naka la ñuy def par rapport ak loolu dafa mel ni nga togg sa yegg togg sa togg ba mu neex nga ñëw benn nit jël ko yóbbu jaar ne c'est ça dëgg moom du weesu ay. mais dool kese la du leneen wax ji du ay affaire mais il faut qu'elle revienne à la raison Les muy doxalee nii xam nga koo koy mais mon ngi koy gas gasal waaw parce que fii ñun ñoo fi dëkk fii lañ juddoo fii lañ yaroo fii lañ màggee liñ fi am fii lañ ko amee tey yii moo nañu fekk ku nekk dem yoonam mais defuñu ko bu ñu fi toogee sacrifié wu nii ñun ñii ñëpp du dara c'est pour c'est pour l'intérêt de parce que pour pour protéger les investissements de Bouba man mënoon dem sama yoon dem voyager comme tout le monde ñun ñii ñëpp pourquoi fii dañ ko encadré dañ ko encadré dañ ko encadré parce que dañu nekk gis nga pour dire dañu amoon benn entreprise familiale bu ñuy gérer bu nekkoon fii à la solidarité suma frère yi ñoo ci nekk ñëpp on était là-bas mais nag du ay ñun ñu quoi que ce soit mais il faut qu'elle revienne à la raison qu'elle respecte la famille la moindre des choses moom xam na bu baax day dof doflu rek mais xam na voilà wax ji foofu la nekk léegi yow ban appel ngay lancer euh, pour vraiment lepp ñëw à la norme xam nga retrouvaille am et cetera seen diggante ak euh, moom et cetera. pour te dire mom ñun waxuñu ko ñun ñun ñun liñu liñu bëgg du leneen c'est la famille se retrouve tout simplement nous voulons que la famille se retrouve moy mom ci famille la bok mën ko dañ ko considérer comme un membre de la famille mais lool rek la légui nak su fekkee ne moom bon xaw mais mom mo war revenir à la raison c'est simple lo règle mhm. du leneen parce que depuis boobu leg on essaie de la rencontrer ñi ngi jema a fi mais déjà bu lay bu bu du la wax né ñëw na benn ñaar buy dem du la wax sax do xam sax kañ lañ. pour ngeen gis ko problème la. c'est un problème. pour gis ndaw si c'est un problème pour gis ko wax ak mom pour ñëw togo wax ak parce que c'est ça qu'on cherche depuis mais yow tu crois que ça c'est normal. pour ngeen gis ko waxtaan ak mom rek. problème pour gis ko wax ak mom rek problème la parce que elle fuit day daw parce que xamna limuy xax parce que xamna day daw loolu da koy daw wax ji loolu nekk. c'est dommage hein. voilà mi ok ok sa dernière mot monsieur Diop. bon c'est-à-dire di di remercier hein. ah yéen ñi nga xam ne yéen a déplacé wu ñëw fii donc mi ngi noonu et puis di wax rek ne euh, wax di di di remercier tout le peuple sénégalais gis nañ ñi gars yi euh, euh, ci cérémonie bi ak yépp donc di wax ne rek daal hein, ci ko appeler d'abord à la raison. mu delloo si xelam xam ne àdduna moom c'est deux fois rien du tout waaw du dara da ngay rafetal àdduna da ngay rafetal waaw surtout ki ndem si yàlla kii nga xam ne moo fi jógee ngay xool ci moom nga rafetal parce que loolu moo am solo yi ñuy def yëpp amul importance mais da ngay rafetal mooy dafa rafet moom bu lépp lu muy def ñëw di waxtaan ci ak famille di ci jëflante ak famille bi loolu lañ ci soxla du leneen loolu lañ ci jublu du leneen mais nag boo bëggee jël famille bëgg leen manque de respect wala teg leen tànne leen ne leen di def yi ngay def nit ñi duñu yëg duñu gis mais lolou c'est ba paré après nga ñëw naan bu waxé nga di di di di kii di mbubu tur buub ak yoy non lolou lolou ça marche pas lolou doxul lolou moom vraiment rafetul mais liñ koy appel liñ koy on rappelle à la raison na delloo si xelam xamné famille bi benn la donc euh, mun kenn bonne bopp kenn mënu ko xar ñaar mhm. waaw lolou mi ngi noonu quoi di remercier tout le monde Euh, ñoo ngi lay jaajëfal bu baax euh, donc suñu mbokk sénégalais yi ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax euh, donc ñu doon waxtaan ak famille Pape Bouba Diop par rapport inauguration bi nga xamante ne defoon nañ ko fi jour mardi bi ñu duppee ko turu musée bu Pape Bouba Diop ñëw waxtaan ak waa fami am donc di leen jox dig daje bu beneen ñoom salaamaaleykum wa rahmatullah